tant que directeur artistique nga ne lan moo tax euh, régression musique Sénégal ci li ma wax ak yan solution lañ mën a en tant que directeur artistique je suis beatmaker je suis arrangeur je suis lyriciste ghostwriter di bind ay son et donc loolu defe naa ni war naa ci mën a wax li ko waral lenn la TikTok loolu ma réponse bi TikTok moo yàq musique Sénégal artistes yëpp comment ça artistes yëpp Sénégal bu dee cent pour cent quatre vingt dix pour cent yëpp bu ñuy def studio xam na lu lay wax génneel ma musique bu ñu mën a TikTok boo génnee musique pour TikTok TikTok dañ ko defal application la boo xam ne day référence par rapport pays bi nga nekk te boo demoon Guinée da lay génne référence ñuy TikTok Guinée est-ce que waa Guinée ñuy toll Guinée di gis TikTok bu Sénégal c'est très rare donc ñun bu ñu bëggee jël suñu production yamale ko ci TikTok mais Sénégal la yem da gis benn son léegi day nekk TikTok ñëpp TikTok boo demee YouTube mooy plateforme internationale bi ñu reconnaître bu am cent mille vues te pourtant TikTok na ko nga gis benn son doo ko gis TikTok nga dem YouTube mu am un million de léegi boo génnee son mu am valeur mu nice buñ ñu ko TikTokul yow échec la si yow da naan doxul ah fay na kenn TikToku ko mais ñun on a boo xam dafa am ñu médiocre tey bu ñuy prôné loolu. concentré wu ci TikTok artistes si tamit mu jéemuñu yóbbu melomaan yi ci benn yoon boo xam te ne mooy yoon bu mën a génne musique senegal parce que tey xoolal les Congolais leur musique rumba mu ngi classé dans la patrimoine mondial par l'UNESCO mais la moo tax mënuñu am mbalax ñun ñu classé ko ci patrimoine mondial UNESCO lan moo tax luy problème bi problème bi c'est parce que plateforme yooyu la TikTok on avait un problème ak làng bi olof te YouTube lu mu lay fay sax ci langue olof ak bu nekkee français bokkul war ngeen ci xam dara tey loolu daf ñu bloqué woon mais je me disais que war nañ ko mën a rattrapé wu ci suñu musique parce que je fais partie des beatmakers yi jëkk a jël sabar def ko ci afrobeat man haut et fort maa ko fi njëkk a def te beatmakers yu bëri di ko reprendre di ko def donc xëy na man amoon naa vision boobu pour xam fan la musique bu mën a dem wutal musique bi benn pied am yenn sample yu ñu ko mën a def yoo xam te ni dañ ko mën a jaay au niveau international mu demee ay afrobeat afro bongo bongo yi bii nii gars yi génne musique nii je l'ai fait depuis deux mille dix huit c' est à vérifier dem leen YouTube avec Zbest Family seen benn titre bu tudd yow laa ba naa ko ba mu ko defee dama leen ah ngi ñëw à l' avenir lii mooy musique bi nekk au diapason muy bongo te la laay waxee dam leen ngeen vérifier ko depuis deux ma def ci The Best Family yow laa entre parenthèse afro bongo tey tub yi mujjee génne yëpp am bongo donc xëy na ñun ñu ngi jéem a prôné di jéem a avancé di calculer aussi parce que am na des acteurs culturels yoo xam ne calculer wuñ ko Sénégalais Sénégal Guinée raw na ko ci musique instant yii am ñoo xam te ni calculer wuñ ko te en plus man tamit damay ñaax suñu papa Youssou Ndour aussi suñu papa Baba Maal ñaar ñooñu. c'est des personnes yoo xam te ne ñu mën a jël musique bi léegi léegi léegi yóbbu ko feneen lañ xëy na nag yenn comportement xale yi wala xëy na li xale yi liggéeyatul aussi parce que ñiy liggéey ci musique bëreetul da ngay gis benn xale day jógee fee riiréeri damaa way génn benn single ay xaritam TikTok ko mu jàpp boppam grand artiste foog ni dafa xew foog ni dafa mën te fekk li mu war a liggéey bëri na xëy na dañuy ragal gàcce di jël yenn artistes yi di yóbbu mais nañu xool y a des meilleurs parmi ñu mën a jël parce que tey Baaba Maal link bu mu am ak euh, Island Record ñëpp xam nañ ko donc Youssou Ndour aussi moom kenn dootu ko présenté ci côté boobu il suffit que juste ñu implanté benn école de musique buy jàngalee way leadership développement personnel instrument nan la ñuy bindee son nan la ñuy defaree son école de musique Youssou Ndour mën na ko xale yi dem inscrit jàng fa am benn knowledge boo xam te ne ñu mën a exporter suñu musique wala il suffit mu tànn parmi les meilleurs les bosseurs woote si yenn label di maison de production comme Sony Music wala comme Universal Music bi mujjee collab bi mujjee collaboré ak dernier album moom leen je vous donne ces boys ngeen liggéey ak ñoom na ko def mais pour revenir lu yàq musique bi tax ñu régressé TikTok la tant que ñuy concentré artistes yi naan lu ñu war a TikTok rek musique AGT la musique boo xam du durer un mois keneen xew te musique xewi donc AGT nag mënul génn fenn